ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa salama taslima mbokki jullit yi mbokk yi ñuy teewlu ci waxtu wi ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam waaye di ko sàkku ci yéen tey nag ñu bëggoon a waxtaanee suukaru koor comme ni ngeen ko xamee ci sunum réew muy Sénégal daanaka li ëpp ci suukaru koor yi yàlla taxut li ci ëpp dóorante la ak jaayante maana xëppante asib waaye ak ngistal te jëf joo xamee ne doomi aadama bi da koo def te mu ànd ak ngistal jëf jooju zero la fa suñ borom subhaanahu wa taala ndax buur bi subhaanahu wa taala mu ngi wax naan qul inni umirtu an aabudallah muxlisan lahu diin loolu mooy numéro 11 ci suuratu zumar yi yonent bi wax ne buur nee na daf ma digal ma jaamu yàlla waaye sellal ko bañ di ngistal bañ di def dara ngir dara waaye joxe suukaru koor ngir ñu ne sëyam neex na joxe suukaru koor ngir ñu ne moom day jëkkëram am na ko joxe suukaru koor pour nga naan yaa ngi defante ak say wujju peccor ga walla yaa ngi defante ak say wujju dëgg-dëgg loolu dara jar ko fi bu dee ci góor ñi la ñu koy defante pour wane ne man am naa dara loolu dëgg-dëgg yàlla taxatul te gis nga sukkaru koor li ko taxoon a jóg mooy nit day nekk si quartier bi walla ci dëkk bi bu dee jigéen la mu sëy si fa am ay yaay ak i baay yoo xamee ne dañ koy xelal di ko defal di ko encourager pour mu toog ci néegu séyam loolu moo buñ demee ba koor gi nag jub mu daldi génnee nag suukar wala ceeb wala lu ni mel daldi leen ko yóbbul delloo leen ko njukkal pour wax leen ne conseil yi ngeen may jox maa ngi koy appliquer mënuma leen fay jërëjëf bu dee ci biir kër gi la yaayu boroom këramam wala bàyyi boroom këramam nga xame ne moom heure bu amee lu ko naqari ci biir néegu sëyam day dem ca ñoom jooy ko fa ñu defal ko andiwaat nag xelam ak sagoom mu toog ci néegu sëyam di sëy loolu moom moo taxoon a jóg sukkaru koor nga xamee ne bu koor jotee mu won leen yéen samay ndey ngeen samay baay ngeen munuma leen a fay waaye lii maa ko def mu nekk teraanga mu nekk suñ diggante wala bu dee ci njëkk yi am sa jigéenu jëkkër boo xamee ne waxtu woo xamee ne sa bët xonq na ci loo xamee ne mënoo ci waxtaan ak sa boroom kër wala ngeen réeroo réeroo bu metti nga dem ca moom wax ak moom mu ñëw wax ak càmmiñam loolu daal di réglé bu koor jotee nga daal di koy delloo njukkal ci loolu wala ay néew di doole ci koñ bi yow yaa ngi sëy am nga tuut koor bu jotee nga def ko occasion pour dimbali leen dëgg-dëgg li moo ko taxoon a jóg bu dee ci góor it noonu la ni waree jigéen rek noonu la ko waree woon waaye léegi nag jaayante maanaa la ak ngistal te buur bi subhaanahu wa taala dafa waxoon ne wa maa umiru illa li yabudullah muxlisina lahu diin fa loolu aaya numéro 5 la ci suratul bayina yàlla nee na digaluma leen lu dul ngeen jaamu yàlla ak façon jaamu yàlla bu mënti nekk moo xam julli la moo xam woor la moo xam azaka la moo xam saraxe la moo xam moo xam ba mu bëri lépp looleen ci def na ngeen ko sellal te yàlla rek daal di tax mbokk yi moo tax buur nee na bu leen yàq li ngeen di joxe yàq ko mooy ngeen toftal ci ay wax yu ñaaw wala yàqu ko mooy ngeen koy def ngir euh, ngistal moo tax boo demee ci suratul baqara ay 264 muy surat la vache da ngay fekk buur nang naan yaa ayuha alladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada kalladi yunfiqu maalahu ria annaasi mu ne bu leen yàq seen sarax yi ci toftal ci ay wax yu bon ak wax yu ñaaw naan xoolal maa ëpp jëkkëram euh, alal xoolal sama jëkkër moo ëpp jëkkëram alal dem ci marché bi lebi ñëw indi joxe ëllëg nga des ak bor bi te boo koy fay nga am difficulté dëgg-dëgg loolu sukkaru koor euh, jaru ko waaye it nga jël li nga am yépp joxe ko ëllëg soo bëggee togg boo bëggee dara danga koy yelwaani ji wala da nga koy saraxu ji dëgg-dëgg loolu dara jaru ko fi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibnu labid radiallahu anhu dafa wax ni mu ne yonent bi nee na li ma gën a ragal ci sama xeet sama ginnaaw mooy bakkaar walla moom mooy bokkaale bu ndaw ñu ne ko lan mooy bokkaale bu ndaw mu ne loolu mooy ngistal joxe sukkaru koor pour ñu gërëm la joxe sukkaru koor pour ñu ne waaw góor yow yaa fi ëppale alal yow yaa fi nangam nangam dëgg-dëgg loolu kon xam leen ne bokkaale la waaye bokkaale bu ndaw la inna axwafu ma axaafu aleykum assirkul ashgar xaalu wa ma shirkul asgar qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arriya kon mbokk yi na ko moytu ndax amul benn njëriñ gis nit dina ñëw yowmal xiyaam ci jàng ay kaamil alquran yu bare bari nit ñëwaat ci demoon na ci toolu xare lislaam yu bari nit ñëw bëri woon alal di ci joxe waaye ñoom ñëpp bu ñëwee suñ borom subhanahu wa taala def leen di poser question. buur ne ko yow lu taxoon ngay jàng alxuraan mu ne dama doon jàng alxuraan pour nit ñi gis ma mu na ko kon nag nit ñi gis nañ la jàng ko jeex na loolu nga ci amoon yow kay kon amoon dara lu baax mu jaar noonu dem safara ki nga xamee ne moom it dafa doon xeex ci yoonu yàlla buur ne ko lu tax nga doom xare ci lislaam mu ne maa bëggoon ñu ne jàmbaar la mu ne ko wax nañ la jàmbaar la kon jeex na amoo dara fi man ndax lépp ngistal la woon kii tam yoroon alalam di ci joxe ay suukaru koor ngir ngistal di ci saraxe ngir ngistal lépp bu buur ko laajee euh, subhanahu wa taala mu ne dama ko doon def pour ñu tàgg ma buur ne ko tàgg nañ la kon jeex na loolu da ci amoon moo tax euh, buur subhanahu wa di wax naan man kaana yuridul xayaata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha fi fiha la yubxasuuna loolu numéro 15 la ci suratu xuud bu nee koo xamee ne buy jëf ci àddina moom daa bëgg li muy jëf yam fii moom na ci ut ngi sal rek ma it ma fay ko fii mooy lim ci bëggoon pour nit ñi wax ko jërëjëf ma yabal nit ñi ñu ne ko jërëjëf ma yabal nit ñi ñu ne ko waaw góor ma yabal nit ñi ñu ne ko yow yaa fi mën jeex na yowmal xiyaam bu ñëwee du fi am dara kon mbokk yi li ma leen digal mooy boo leen di joxe sukkaru koor jox leen ko ñi nga xamee ne amuñu jabet boo leen joxee sukkaru koor jox leen ko ñi amul jabet lan mooy loolu mooy koo xamee ne am na koo xamee ne moom loxoom jot na ginnaawam kii que soit ak ku mënti nekk dëgg-dëgg bàyyi ko fa jox ko ki nga xamee ne da ko soxla rawatina ci jamonoy confinement bi nga xamee ne ci lañ nekk ci jamonoy couvre-feu yi nga xamee ne ci lañ nekk nga xam ne daanaka kenn mënatul génn ñuy doon taaba taaba yépp jafe-jafe day ñëw ci ñoom kon suukaru koor bi jox leen ko moo gën nga jox ko ki nga xamee ne dafa am euh, ba pare ci ngay ëppee yàlla waaye ci loolu la suñu borom subhanahu wa taala daal di digal ndax innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakin yal na yàlla def si ñun euh, dégg ak topp def ko ci yéen yàlla yàlla wan dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp mu wan ñu caaxaan bañ xam ne li caaxaan nañu wan ko ginnaaw wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu